nee naa ko je suis vous à la télé tout le euh, ce que da bëgg réagir par rapport à ce qui a signale que yaa ngi en direct oui oui waaw non euh, non da nga bëgg réagir par rapport à li ñu wax fii euh, concernant déclaration bi nga defoon ak rétropédalage bi nga defaat qu'est-ce que Farba Farba na wax pour boppam mais bu wax pour man. waaw. mu ne. oui vas-y. ñu ngi lay dégg na nga wax. pour sa bopp mais bul wax pour moom. asalaam asalaamaaleykum. waaleykum salaam di d' abord da nga koy wax ne question bi ngeen ma posé lay tontu. Ah, on a posé une question à à à Farba. Mm. on m'a posé une question dans une émission. je suis en train de le répondre loolu yow mi may mun a répondre ça ça man soulevé wu ma fii waxu Abdoulaye Wilane. non euh, il a voilà c' est Maïmouna qui a posé cette euh, question. man maa Abdoulaye Wilane man maa posé question. voilà yow def nga fi déclaration xaw a ŋàññ euh, troisième candidature. voilà après nga defaat rétropédalage. Euh, euh, ne euh, nga génnaat ci déclaration boobu est-ce que ci loolu nga bëgg a intervenir vous êtes en direct je vous signale encore une fois. waaw waaw waaw man kay bu ñu dégloonte rek ma wax. Mhm. ñu ngi lay déglu de. waaw kon xam naa télé mooy jàkkaarloo moo tax. waaw ma ñu ne ñu yow rek la ñuy déglu. télé bi ngay wax oh, wala bu fekkee ne amoo intention réagir ñu voilà on se reprend. écoutez <laughs> je veux qu'on euh, pour euh, le bien de votre de pour le bien également de nos compatriotes qui nous écoutent euh, maa ngi nuyu ñi fa teew ñëpp di leen wan sama parce que man la télévision là moom mooy poser problème mais li ma bëgg a wax mooy. da ngay couper télé bi nga mën a wax. waaw euh, xaar voilà alors je dis que j'admire euh, la liberté de ton et le courage politique de notre frère et allié euh, Farba Ngom que koo xam ne bi ma koy xam ak léegi yàgg na. oui mais dama bëgg rek euh, ñun ñëpp bu ñuy wax ci débat yu mel nii. ñi bañ a dugg ci mbir yi parti parce que le parti socialiste dafa respecté alliés yi nekk ci biir coalition benn Bokk Yaakaar yépp parti socialiste li muy def ci coalition benn Bokk Yaakaar euh, souverainement et conformément aux délibérations de ces instances la koy def euh, ku bokkul nag ci instance su parti socialiste euh, li gën mooy loo ànd ànd ak waa parti socialiste nga bañ a wax ci biir mbiri Pastef man li gënoon mooy su ñu la laajee ci sa allié nga ne na ngeen xaar ba allié boobu ñëw toog ngeen laaj ko mu wax waaye wax ay rétropédalage wala wax génn ci man ab laay bi du ma koy wax génn ci wax ja dama bëgg loolu. donc yow da ngay maintenir sa première déclaration que yow ànduloo ci troisième candidature. ma ne. parce que weddi waatoon nga ko moomu toog. Farba Ngom moomu toog ak képp kuy républicain en commençant par notre leader le président Macky Sall ma di ko nuyu di ko sargal ci koor gi ñun ñoo indi constitution bu wane ne mandat bi juróomi at la mën nañ ko tollanti benn yoon kenn mënta am lu ëpp ñaari mandat yu toflantoo loolu la constitution bi wax loolu la président Macky Sall xalaat loolu la ñu xalaat ñun ñii wax ji mooy loolu est-ce que wax bi leer na. léegi lan moo si sa position. wax bi kay leeragul. yow yow lan moo sa position. mais attends ma Maïmouna la constitution du Sénégal daf ne le mandat la durée du mandat est de cinq ans renouvelable une seule fois nul ne peut faire plus de deux mandats constitutifs. de cinq ans lu dëkk. ma ma bu leen xel ma ko ci wolof. mandat bi juróomi at la ñu mën koo tollanti benn yoon kenn mënta am lu ëpp ñaari mandat yu toglantoo donc président ñaata mandat la am euh, euh, yow lan nga jàpp ne président ñaata mandat la am yow laa la ah, ma ko laaj man kay yow laay laaj <laughs> <laughs> mais à partir ko sobi nee na mandat bi déglu ma amee mun a non dama bëgg nga joxe une position est-ce que président Macky Sall mën na dem troisième mandat ou pas non a moom mu leeral position. soo paree nag comme on m'a interpellé je je a répondre. quoi. maa ngi maa ngi maa ngi lay déglu kay man. waaw ak lu personne xalaat. da nga may woo foofu en tant que invité en chef ma ne toog wax dara yow waaye li tax ma dugg mooy damay invité mon ami Farba Ngom.

ko farba may ñu on a aucun souci li muy wax ni dama koy dëggal bi may xam Wilane ak léegi ëpp na 30 ans farba may ma rek man boobu Abdou Diouf était pouvoir laa xam Wilane c'est des rares personnes dans la coalition que j'ai connu bien avant que depuis ko Abdou Diouf était président farba may rek donc comme je l'invité nag mais sama émission dàgg ah si Mansour c'est-à-dire c'est-à-dire a créer nii loolu laa du parce que je n'ai pas déedéet aw ma divergence ak Wilane. non mais pas non xaaral rek aw ma divergence ak Wilane. j'ai pas interpellé Wilane du waxaluma Wilane. mais loolu aussi bu ñuy waxte yàlla tax. quand j'ai une émission je suis invité tu veux savoir la position de Wilane. dans la position que Macky Sall soit candidat il faut l'inviter Wilane loolu la mais man maa nekk invité bi non il faut qu'on soit non non ah, ah, Maïmouna soit je suis ou je ne suis pas invité non ba am naa fulla nag Maïmouna déedéet doo ma pamti pamte ñu ngi nii toog di waxtaan may déglu te gis loolu faralu fa du ma daaw di ko gis dans vos émissions nga di ko def nga ko dugal ci direct la télé actuellement comme je suis invité nous appartient ah ça sa invité nag ma dem fii yow yaa fi doxal mais là on a une décision commune d'accord may dem invité dama may am may ma non ah, je suis invité c'est-à-dire Abdoulaye dama bañ li ngay def nii loolu laa dul d'accord man Abdoulaye Wilane ñoo bokk benn bokk yaakaar on a aucun problème nii boo amee loo koy laaj déedéet rek boo amee loo koy laaj pourquoi jëloo beneen opposant nga dugal ko laaj ko sa position. je ne suis pas d'accord man laajuma ko. waaw loolu li mu war a def xam nga lu xew lan la. lu mu war a def lu mu war a def. xam nga li xew lan la. farba non non non non non nañ def émission émission débat bay jeex émission dem na bay jeex may mun bu ñu yàq suñu émission bi farba là c'est bon ah? euh, coupé naa wilaat ah, xam nga dañoo bëggoon préciser wilaat ne ñun ñoo ne il a fait une déclaration et il a rétropédalé mais loolu d'accord naa ci mais loolu mais loolu est-ce que man li ma fi tontu aussi boo ma posé woon même question waaw xam nga ne man nit laa koo xam ne j'assume mes positions je vais jamais dire Wilane lu bon duma ko ŋaññi duma ko xas du ko wax lu bon jamais par principe parce que Wilane defuma lu bon defuma li tax ma koy waxal lu bon benn ñaareel bi aussi yéen a ma posé question sur Wilane man bi li Wilane di wax ak li Wilane di répondre yëpp xaw ma wallahi lazim ak waxtu yàlla bi et je ne Wilane c' est des rares personnes dans Benno que j'ai connu au moins trente ans bien avant pouvoir depuis pouvoir Abdou Diouf on a partage dans un même véhicule jóge fii j'avais j'ai un ami qui s'appelle Seydou Kébé qui habite au centre social de qui habite au Derkel wetu clinique grade moo ñu daan yóbbu dans sa propre voiture ñu ànd mën ak Wilane am fu fu bëri fu ñu jaar donc on n'a pas de problème ouais, c'est-à-dire que li muy tontu noonu aussi baax na comme je parle à télé te yaakaar naa mu ngi ci telam di ma déglu ŋaññiw ma ko waxuma ko dama ko ne il est dans un parti politique yaakaar naa toute décision man tey am naa xalaat wax ko ko ce qui me concerne personnel mais à la place du parti bu ma koy wax damay waxtaan foofu rek laay